بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وخلفائه طيبين الطاهرين ورد الله الخالد عن جميع المؤمنين mbokk julit yi ñoo ngi dellu di leen nuyu ñoo ngi leen di ziara ñoo ngi leen di balo àq ci weer wu weer la woo xamante ni yërmande la weer la woo xam ni njéggal la waaye goreel la ci sawara yal nañ ko yàlla defal kon koor dafa doon jaamu yàlla goo xam ni li ci yàlla dugal ci ay njariñ bari na loolu bokk na ci njariñ li dana tax ñu faxasal la say bàkkaar waaye loo ci jaamu yàlla itam yàlla daf koy ful bokk na ci njariñu koor fa tabaarakallaahu loo ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla daf koy nangu kon lépp lu nu ci ñaan jaamu ko ci jéggulu ko ci yal na yàlla jéggal ñu ko ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi wa moo tax yonente bi wax ni inna allaha taala yaqul inna sawma lii wa ana ajzi bihi yonente bi nee na yàlla dafa wax ni koor maa ko santaane maa koy régler sama bopp waaye man maa koy fay mu wax ni li saaimi farxatayni isaa aftaraha farixa isaa yara allahu taala fa jazaauhu mu ni aji woor ji dafay am ñaari mbégte nee na mbégte mu jëkk mi su wooree ba ngoon jot mu dog kooram dana kontaan loolu ndax wéyale na ndigalul boroomam jaamaarloog seytaane ak bakkanam ba not leen moo tax bu dogee kooram dana bég loolu maneen bégte ma nag nee na ëllëg bu dajeeg yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni ku ko defal benn mu fay lu fukk ku ko lebal ker mu fay la guddi yàlla subhanahu wa dana ko fay te ku yàlla fay nga kontaan mu ni walladi nafsa muhammadin bi yadihi la xuluufu fami saaim atyabu inda allahi min riixil miski yonente bi nee na maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ni moo yor sama bakken mu ni xetu gémmiñi aji woor ji nee moo gën a neex ci yàlla ci xeetu parfum misk ni mu neexee yàlla nee na xat gi nga xam ni mooy génne ci gémmiñi aji woor ji gémmiñi sama jaam bi yàlla nee na xat googu moo ma gënal xatu parfum misk li muy neex neex lépp moo ma ko gënal kon yal na yàlla fay nu fayal nu suñu koor yal na yàlla nangul ñu suñuy jaamu yàlla kon bu ko defee ñu jox leen naafila gi nga xam ni moom la ñu war a naafila tey ci alxamis ji mu wax ni sopp nañu ku julli ñaari rakka ràkka bu ci nekk dangay jàng faatiha jàng qul huwallahu ahad fukk ak ñaar nee na boo ko jullee kaana lahu min al kaman salla fi maqaami ibrahima alayhi salaam nee na dinga am ab yool boo xam ni dangay mel ni ku julli ci maqaama ibrahima bi nga xamante ni moo nekk màkka ci wetu kaabatul musharrafa nee na boo ko jullee nee na danga am yoolub junniy ràkka junniy ràkka yoo xamante ni neena danga koo jullee ci masjidul xaraam nee na boo ko jullee danga am yoolub kaman tasaddaqa alfa dirhamin yoolub ku saraxe junniy dërëm wa atama alfa jaain nga leel junni nit ñoo xam ni dañoo xiif amuñu lu ñu lekk nga jox leen ci sa am-am ba ñu lekk ba regg danga am yool bu toll noonu nee na boo ko jullee walla hoo daawatun mustajaab sak ñaan dañu koy nangu wala hoo sawaabun kaman aftara ummata muhammad danga am yoolu bu toll ni ku dogal ummatu seydina muhammad xeetu seydina muhammad li ñuy bari loolu nee na boo jullee ràkka yi nee na danga am yool bu tol noonu nee na boo ko jullee wa yuhawwinu llahu alayhi al nee na bu ëllëgee booy faatu yàlla dafay woyefal sag dee dafay woyefal sag sukkuraat bu malakul mawti di jël sa ruux doo ko yëg nee na boo ko jullee wa yakunu fi qabrihi rawdatul janna nee na sa biir bàmmeel dañ koy branché mu doon benn kilim boo xam ni day def direct ca aljana nee na boo ko jullee nee na yowmal qiyaam wa yaquumu yowmal qiyaam wa lawnuhu ka shamsi nee na ëllëg boo dekkee yowmal qiyaam nee na dangay leer ba mel ni jant bi nee boo ko jullee yàlla subhanahu wa taala wa yadxulul janna bi xayri xisaab dana la dugal aljana ca du la régler yal nañ ko yàlla defal kon mbokk yi kon naafile gaangoogu am na solo loolu ñaari ràkkaa la fa tabaarakallaahu ràkka bu ci nekk dangay jàng faatiha jàng qul huwallahu ahad fukki yoon ak ñaar ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala li mu digle ci naafile googu ci ab yool yal nañ ko yàlla nangul ci barke Seydina Muhammad